waaw xewal bu neex laa leen di indil pour yéen ñi di jouer 1xbet mën ngeen utiliser sama code promo WALF da ngeen koy bind en majuscule ngeen dem si sama commentaire yi am na lien bu ngeen fay fekk ngeen bës ko télécharger d'abord l'application 1xbet ensuite ngeen def dépôt pour mën a am bonus ba 156 000 ndaxuma leen de te li ci gën a neex mooy soo dugalee xaalis ak nu mu mënti toll dama la koy rembourser c'est-à-dire soo dugaloon 50 000 tey dama lay delloo cinquante mille nga dugal cent mille ma delloowaat la cent mille xanaa kon loolu neex na daw leen gaaw ngeen télécharger l' application OneXBet avec OneXBet gagné leen xaalis si ni mu leen neexee. alhamdulilah waaye daal xale yi ñu ngi si jàmm. ñu ngi jàmm ba macha allah ñu ngi jàmm ba macha allah sant bu wér macha allah alhamdulilah sant kay. ah kontaan nañ de. Ah, li la mënal moroom ju sax. macha allah dëgg yàlla ah suñu doom gisee loo xamante ne ko sa kër. tey moom damaa am ay gan moom tey moom damaa am ay gan. dëgg la. waaw salaamaaleykum. Kumba Khadija. Oui, sama ndey. oui Khadija. Kumba. oui. lan la waaw lan lan la. Moussa Moussa Moussa lan la. Khadija Kumba. dimbali jóg jóg jóg Moustapha jégalu ñu jàpp Moustapha. mais man man man ko waaye yëpp jóg jóg jóg Moustapha waxuma la la. kay dinaa la wax dinaa la wax nañ dem bàyyi leen dem nañ dem. Kumba la la. Moussa Ba Moussa Ba bëgg naa xam lan lu xew. suñ tur Moustapha sama yaay muy jooy lan lay jooy. Hmm, sànq dégg naa ko mu naan j'ai retrouvé ma grande sœur. grande sœur. daa mel ni looloo tax muy jooy. grande sœur lan encore. kumba foo nekkoon kumba foo nee wër naa la fa kumba foo nekk wër naa la fa kumba ak sëriñ foo nee dem naa fa <laughs> sama nag jigéen ñi kumba fan nga nekkoon kumba foo nekkoon ah dem rek bàyyi ma ni ma duma kii ma duma duma dem naa la metti woon ba nga dem lan moo la naqari woon ba nga dem wax ma ko wax ma lan moo la naqari woon wax ma ko ah lan moo la naqari woon ba nga dem kumba bàyyi ma man kese ma yéen ma ma kenn ko ma ne naa fa ñun ma yaa ngi dund waaye ko foo nekk fu ne wër naa la ba ma meloo ma àq maa la amee àq bal naa la naa la yow a baal ma baal ma naa mag ju nga yow mag ju nga mag ju bëgg ay rakkam nga amaloo ma àq nga déjà noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi tey de bisu jooy tey bisu kontaante la bul jooy ba sa noppi noppi noppi bul jooy noppi noppi noppi bul jooy noppi sa rakk yaa ngi nii sa noppi noppi nijaay naka yaram wi yaa ngi tane bu baax ah, alhamdulilah man na xam nga wax dëgg yàlla dama laa yërëm ci feebar beeg tëdd bi metti na torop waaye yàlla la yàlla may wér waaye li ma xalaatoon mooy wut xale bu ndaw may la ko munaas jënga nga fi xale la jongu man te bu ma ko indi ci kër gii dina ma déggal te dina la mën a yor bu ko defee ndax nga tane tuuti boog muy wax ak yow di kaf ak yow man di loolu laa bëggoon a def man maay takk jabar ji indi ko yow toogal rek hmm? ak ah, xelu nga ma de sakk ak barke biiru takk boobu ngay wax bu yóbbu na génn sa xel bu yóbbu na génn sa xel kon fees naa ci sa xol loolu lu mu doon yàgg la yenn comme diis gën sama bopp déet waaye yàlla bëggul ko tooñ hmm. damay hmm. naa ko tooñ bi rëy lool mu balu ko ak yàlla di def li jot ci man yow mi dangaa mën ndaw soo tooñ nga ne tooñ boobu tooñu lan la bu mu feesal sa xol bi son sonal la nii lan la buykat bu tojul du am njariñ léegi nag comme ndaw soosoo tax nga banku nii sa xol bi di mitti nga sonn lool ndekete man mii jàggal jëgg ci kër gi duma ci dara léegi nag damaa bëgg yow ndaw soosu nga wax ma kan ma ma dem wëral lu ko ba gisal lu ko andil la ko ndax nga jóg wér tooñ moom boo tooñee yàlla nee na soo tooñee baalu àq loolu yàlla nangu na ko wax ma ko gaaw waaye loolu kay lu jërali loolu moom dama ciy dox hmm? nga dégg ko xara mm-hmm. su ma xamoon fi ñu dëkk ah. wax naa la ko bu na s-a dat formă. Ce m-a fi pârlă? Nu știu. Asi. Asi. génnal sa xel ci sams. luy loolu. génnal sa xel ci sams. Asi est-ce que xam nga ne man ak Xadija ñu bokk ndey ak baay. kuy Xadija. yaay e sams. ma sois raisonnable yow tamit. sois sérieuse loolu comment c'est possible da nga bëgg a wax Chams sama mag la man ak man ak maman ay mag a rakk lañ <laughs> loolu c'est impossible loolu nan la mën a nekkee ak yow ak yaayu ñoom Chams nan ngeen def pendant tout ce temps gisante woo leen xamuma ko xamante wuñu écoute maman man je suis ta meilleure amie man sa xarit laa à chaque fois tu te confies à moi. man aussi pareil bu nekkee dafa am dara loo may nëbb non mais sérieusement bu nekkee dafa am loo ñuy nëbb wax ma ko wax ma ko man man je suis prête à te protéger ah tu confier à moi dafa am loo ñuy nëbb maman comme ak sama yaay ndey baay loolu de mooy leen waaw <laughs> yéeme na de te nga ci xamul sa yaay bi jógee foofu ba léegi mu ngi ci néegam mais papa moo yey ay jooy daal na ko jàpp rek papa xam nga bu ma interroger un peu l'histoire war na ma nekk sax parce que mama ni mu bëggante ak mami c'est pas possible mais maanaam mbëggeel gu dëgg gu sincère goo xamante ni moo doon daw seen diggante loolu deret la yéeg yéeg la woon même man ak ak asi bu doon ay affaire yu seytaane yi mais cet amour-là c'est difficile ah moo tax ma xalaatoon euh, benn affaire est-ce que euh, dem ju ni ngeen mel xëy na euh, boo gisee mën na amul dal man ah. ba yow xam nga mag sama yaay sama yaay bu ay bëtam tambe man maay jooy te pas kuy jooy du nax kuy jooy léegi bu la neexee au lieu nga ndax benn jooy ñaari jooy ngay ndax mun naa demee ñaari ñaari man samay jooy du arrêté te je crois que dans cette affaire la dans cette affaire bi mu toll nii nii sa doit être extrêmement difficile pour c'est du bonheur quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. de retrouver sa sœur. des années durant il toujours cru que rakkam mi ngi dund il a toujours cru que voilà quoi daf ko leeroon ni mi ngi dund mi ngi nii tey ji ay yéeme na ba yow koy sa place moo nekkul fii wax dëgg yàlla demal ci sa soxna si papa Demal demal. je vais réessayer. ça vaut la peine de demal. ça va être dur. Sí. bu ñu récapituler Diena dafa bon c'est ça sàcc la aussi ah. ah waaw. dafa mën fen. ñu boole dafa bari man mënu mënumaa wax lépp sax lépp mënuma ko wax. seytaane la aussi. lépp boo ko boolee lu bon lu ne mi ngi ci Diena. gis nga mère jigéen bu yooyu yépp boole laa bëgg a takk man te loolu Diena moo yor ci ko yooyu na doon mbaam. la doon xaj man moom la bëgg gis nga mag lay dox tànki jàmm ci duggul si lu yow kii tu es pour juger Dieyna. waaye kii yow la. eh man yow yaay kan bay juger Dieyna balaa ngay juger Dieyna tu penses pas à ta fille. Dieyna te déglu ma la da nga may déglu. Ah. da nga may déglu yow tu penses à ta fille qu'est-ce qu'elle est capable de faire yow toogal sa rox boobu rek ñu lay tu n'es qu'une maman manipulée par tes enfants. tu suis que le besoin de tes enfants. dama ne dama ne bu fekkee am nga looy wax wala looy conseil nga conseil ko sa bopp te nga toppatoo sa sëy bëri da nga ma wax ah, ah. sama kër la ba fi ñëw dafi wax jàmm bu dee sàcc bu dee lu mu doon man je l'aime comme ça c'est tout. ah yow doo toog ma wax ak yow man sa jàmm rek laa la bëgg a. jël sa sa daal nga génn waa jógal jógal jógal. Oh, da ngay def nag ma sol samay. daal man si kër gu rafet laa génne. kër gu rafet dama nga wax ko dem ñun ñu ngi judd kër gu rafet kii la. voilà maa ngi dinaa xam fu dee naa nekk de. ngeen di mel ni. fan la naa dëkk. xaw ma ko génn. Ah, ah, ah, sama digg li yàlla may gaañ. doo génn wala doo génn waaye génnal. eh Moussa xëy mu gën mooy Quelle vie oui allo Dina. allo ba jàmm ma jàmm la maa ngi ah yaa ngi ñëw waaw oh, d'accord ok ok. nee na mi may. ñu may woowaat xaw ma ne mi ngi ñëw man damaa jàll sax xaw ma sax lu may wax. luy loolu. yàlla na jur jàmm. yow. Asi def ko dégg na ko. kan nga ndax sañ na ko. kan nga laaj ndax sañ na ko. Moussa Asi sañaan defa dégg. Asi am na lu mu sañu Sénégal ci àdduna bi ndax yow Asi am na lu mu asi ah, fekk mu fii ci ba nekkee fële poñe ma wax ma lu ko neex yow asi ah, kidnap la kidnap la wu la fi kooku eh, yàq yàq yàq takk dara ah, def na ma lu ne ci àddina. man kooku nga bëgg taxaw fii naan ni ñaan na jur ci am asi bêtise yi muy def yëpp sax na ko dëgg neex yàlla c'est de. waaw bi yow xamoo yow yow xamoo asi kooku dafa capable wóor na yàlla yow xamoo asi dama sonn nag Moussa dama sonn eh, eh, eh, Moussa Moussa man ci àddina lu ma lan la lan la asi lan laa ko def asi lan laa ko def asi lan laa ko def dama sonn asi yaa fekk mu bëgg nga ne ko coppet yóbbu santal yàlla ba asra yu laay wax. man kooku dama ko bëgg gënu ma koo bëgg laa wax. waaw léegi santal yàlla ba asra yu la gënu ma koo bëgg. Ah. nan laa ne ko coppit yàlla moo ñu boole yow tamit bàyyi li nga yow la moo tax nga koy défendre yow Asi yow. kan moo défendre mooy sax. kan moo défendre Asi man Asi suma ma sañoon fi mu toll nii mi ci ginnaaw kii cellule yi ñu tëj ko ràpp tëj ci kaso bi man maa ngi défendre Asi yow xamoo Asi sax billahi yow xamoo Asi mu capable ana ay yàlla ñëwal te bul yónnee ay yàlla. ah déet yàlla mu yónnee yàlla yàlla takk na lii yàlla yàlla sotti ci jàmm ak salaam. allahu akbar amiin waaye loxo aas bi ci duggee de moom. du sotti ñaan lan lay ñaan yàlla dégg di samay ñaan samay ñaan yëpp. yàlla ma yàlla musal ci aas sa booxu ma la aas yi. amiin yàlla ma yàlla musal ci yow. fu ma jaar yàlla boo fa jaar. fu sam si jaar ñoom ñaar yàlla nañ loo. déedéet loolu as yàlla wàcc rek sam si yéeg. loolu waaw xewal bu neex laa leen di indil pour yéen ñi di jouer 1xbet mën ngeen utiliser sama code promo WALF da ngeen koy bind en majuscule ngeen dem si sama commentaire yi am na lien bu ngeen fay fekk ngeen bës ko télécharger d' abord l' application 1xbet ensuite ngeen def dépôt pour mën a am bonus ba 156 000 ndaxuma leen de te li ci gën a neex mooy soo dugalee xaalis ak nu mu mënti toll dama la koy rembourser c' est à dire soo dugaloon 50 000 tey dama lay ma delloowaat la 100000 xanaa kon loolu neex na daw leen gaaw ngeen télécharger l' application 1xBet avec 1xBet gagné leen xaalis si ni mu leen neexee.